ñi nga xam ne dañoo sampoon seen ndënd te leen éliminé ndax lu ñu bokk sax si jongante élection présidentielle yi ñoom dañoo bindoon président ne dañoo bëgg audience ngir wax li leen metti waaye diggante loolu ñu bind ak bés bi ñu leen joxe audience bi am na daal yu bëri yoo xam ne dafa dox ci diggante bi yu yëkkati ay laaj yu amagul tontu ñi nga xam ne ñooy recalés yi maanaam ñi ñu tëye te bokkuñu ci ban jeu la ñuy jouer ñenn ci ñooñee daanaka dañoo teel a wax ne duñu bokk ci ndaje président bi fële ca pale ndax li ñuy bañ moo ñu mujjee dugg ci ndëgg sërëx boo xam ne da leen di indil déggoo ak Macky Sall waaye njiitu réew mi moom sax si wàllum politique lu mu doon xaar ci ndaje bi mu am ak ñi nga xamante ne ñoom la ñu téye si candidature élection présidentielle lu ci mënti am candidat yi daal recevoir nañ leen gannaaw dogal bi nga xamante ne juróom-ñetti sage conseil constitutionnel jël nañ ko si candidat yi war a bokk lu leer daal moo di ne am na benn intérêt politique bu lalu ci ginnaaw ndaje boobu boobu xamaguñu sew-sew yu nekk ci biir njiitu réew mi moom wax na ay yoon yu bëri daañu respecté calendrier républicain bi maanaam ba si ñu jàpp élection yi kenn du leen toxal kon lan la ñu wuti woon ci njiitu réew mi looloo jaralaaj ndax liste candidat yi moom conseil ne xas na ko jébbal te mënu ci soppi leneen candidat yi sax tàmbali nañu joxe mandargal yi nekk ci seen bulletin de vote yi maanaam couleur yi ak ñi leen di représenté te ñu ngi waajal dugg ci campagne bi bu nar a tàmbali ñett fan ci weeru février bii di ñëw tàmbaliwaat processus électoral bi moom daanaka day mel ne dañuy delluwaat ginnaaw ci élection présidentielle yi ñu jublu ba pare loolu sax tax na ñu bëri yaakaar ne audience bi nga xam ne président am la na ko ak ñi nga xam ne dañu leen a recalé téye leen du ñu bokk ci joŋante élection présidentielle yi politique moo ci lal ba ñenn ñi sax benn jéego rek moo leen dese. ñu dem ànd ak Macky Sall waaye nag loolu sax du bett kenn ndax Sénégal moom mooy réewu teraanga ak jaloog bi nga xamante ne politique moom li fi am daanaka dafa mel ne amul fenn kon ci élection présidentielle yi mun nañu xaar ñi nga xam ne ñooy candidat yu ñu téye woon ñoom i tamit ñu samp seen ndënd bokk ci élection yi loolee sax lu mën a nekk la Sénégal moom ndax fii moom ci politique lu ñu wax ne mënul nekk lu mën a nekk la ci suufu Sénégal